ñu tudd ko ci ak coow bu jëm ci transporter ndimbal gi nga xamante ni état bu Sénégal jënd na ko ngir dimbalee ko ñenn ci askanu Sénégal ci jamono joo xamante ni coronavirus bi mu ngi lëmbe réew mi député bi di Demba Diop ñu gën ko xam ci turu Diop si moom moom entreprise bi di UDE di société bi nga xamante ni moo gagné lu ëpp ci marché transport aide alimentaire gi nga xamante ni état bu Sénégal jënd nañ ko ginnaaw nag bi coow li jógee ñu bëri ci askanu Sénégal danoo jàpp ni li tax ba Diop si gagné marché bi du lenn lu dul jege ji mu jege ki nga xamante ni moo di Mansour Faye ministre bi moom mi doon joxe marché yi ginnaaw accusation bu rëy bi député bi di Diop Sy moom xam leen ne ni loole waxu kasaw-kasaw rek la laaj bi samp nag mooy lu tax ba Diop Sy di déranger ñenn ñi ci Sénégal ndax kat li ñu nemmeeku moo di entreprise Diop Sy bi di IDE remplir na condition yëpp ngir gagné marché bu ni mel mu mel ni nag ñenn ci transporteurs yi ku ci mel Njaareem ñoom ñi bëggoon a joxe seeni camion gratuitement dafa mel ni kat liñ ci jublu woon moo di yàqal ki nga xamante ni moo di Demba Diop ñu ko xam si Diop si Diop si tamit xamle na ni ñoom transporteur yee lañ bëggoon a def defuñu ko ci neen ndax kat ton bu nekk ñu ngi ci doon laaj état bu Sénégal cinquante francs ci benn kilomètre bu oto yi daw mu mel ni dil bu éclaté bi moo waral ba seen réunion bi ñu amoon daal di mujjee jeexee ci ab paccaxoo ndax kat góor xuma ak ñoñom li a cher li proposé na ko Demba Diop nag xamle na ni mbir mi amul benn yoon ab maguy wala sax ab favoritisme lépp jaar ci yoon ba tey tamit xamle na ni kii di Mansour Faye ab ministre la te moom ab député la donc amut lenn loo xamante ni arrangé nañ ko fi Diop si nag ñu bëri ci askanu Sénégal jub lañ ko seedeel ak dëggu waaye tamit ñu bëri xamle na ni borom xol bu rafet la te tamit day dimbali ay nit yu bëri bëri te kenn du ko yëg daanaka buñ doon wax sax baax jëmm juy di Demba Diop alias Diop si ndax kat lu bëree bëri day yëkkati xaalis bu bëri wala ay daara yu jëbbal ko daara yu bëri yu nekk foofee ca Tiwaawan loolee ku mel ni Iran Ndaw du ko weddi ku xam Diop si nag xam ni nit la koo xamante ni du dundee aqu sénégalais yi ci jamono jo nga xamante ni jàngoro coronavirus mu ngi lëmbe réew mi ndax kat moom sant na yàlla bu baax bi ko borom bi defalee teranga ju bëree bëri ba tax sax muy dimbali ay néew gu yu bëree bëri Demba Diop nekk na nit koo xamante ni nangoo liggéey ba pare di ko joxe Diop si nag ku ko xam xam ni daana fréquenté ki nga xamante ni moo di Lamine Diack moom Lamine Diack sax moo ko jëloon taf ko ci boppam ci moom sax la daal di jàngee li nga xamante ni moo di politique Diop si nag mi ngi doore njàngam ca école Clémenceau bu nekk ca Dakar ginnaaw bi mu amee BFM nag ñu daal di koy orienté ca lycée Maurice Delafosse foofee la defee comptabilité ci ginnaaw bi ci la daal di am ab CAP ci wàllum comptabilité ak ab diplôme d'études comptables supérieures Demba toll ci juróom-ñaari weer ci ab cabinet comptable bu nekk foofee ca Paris ca huitième arrondissement ci ginnaaw bi nag ci la daal di ñibbisi ci réewum Sénégal ngir daal di occuper ab poste comptable ci ab société bu doon yëngatu ci wàllub développement et vulgarisation agricole SODEVA pour ñi ko xamul nag Diop Sy moo nekkoon gérant restaurant central bu université Cheikh Anta Diop moom Diop Sy sax moo transformé restaurant boobee ba mu mel nii tey kon nag nañ ko wax chapeau te daat koy respecté tey éviter di yàq ab deram. asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu ginnaaw bu ñu leen nuyoo ba pare ziyaar leen euh, jéggalu leen ci déplacement yi ndax xam nañ ne déplacement dafa métti gërëm mbooleem ñi fi daje ñëpp télé yi rajo yeeg ñëpp ñu ngi leen gërëm journaliste yi bis bi solo bi lu ko waral du lenn lu dul rekk ku ñuy wax Diop si Diop si nag njabootu Serigne Mansour la mais su ma yeboon nag njabootu kër gi la moom moo initié lii muy def at mu jot mu jël ci wërsëgam la mu am jënd ay yére ne ginnaaw tabaski mu ngi mal xale yi mën a ko sol mun am luñ tabaski xam nga li ñu miin mooy ñaari tabaski bu jotee xale yi dañuy tumuranke parce que fu sa papa nekkul sa yaay nekku fa te kala yor mënula defal li war ci yow donc il faut nga tumuranke Diop si nag moom moo xool loolu xam ne eh, li ko yàlla dénk ci wërsëg mën na ci sàkk dimbale xale yi mooy lële ngeen gis ñu jal ko alors que loolu mooy sabab bi ñu di ñu ñaan nag en tant que jàngalekat en tant que nit ku ne ci daara ñu dénkuñu ko ñu itam bu ñëwee waxtaanal leen fekkee mbir mi ndax loolu moo gën a rafet kii ci suñu càmmoñ mooy siñaan moom it sëriñu daara la. te it bésu daara nag nitu daara rek ko mën a saytu ndax ñoo xam la ca daara ja keneen ku ca dugg itam da ngay tatone mais la ngay wax leerul la mu ngi mel ni journalisme rek ñun jànguñu ko tey buñ ci duggoon mën nañu wax erreur baa ñu def erreur mais dañuy tatone parce que duñ wax lu nekk ci yoon donc daara noonu la tëddee jub ba nga xamee def na ko it mu jël kii xale bii moo nekk ak moom muy Mansour Mbeng yor léppam fii ci Tiwaawoon vraiment mu ne ko kon ma bëgg ñu dajale xale yi li ma am ma jëndee ko ay yére fay ay tailleur tailleur yi ñaw ko Jóob moo ko jënd moo ko ñawlu mu nga ne lépp lu ñaw ba pare la bu ko defee dañuy jox daara bu ne ay yéreem xale yi sol ko mun ko tabaskee defe naa initiative bu rafet la <clears throat> ñi nga xam ne may faral di wax ne kuy xeex euh, xale yi ci mbedd mi wala ngay xeexal daara yaa ngi commencé ci dimbale daara mais doo jël rek ne damay jël tëj wala damay jël arrêté wala dootuma gis kenn ci mbedd mi boobu du solution bi solution bi mooy lii Jóob ci def kenn ku ne la la yàlla dénk nga tibb ci dimbale xale yi nga xam ne ñu ngi nekk ci mbedd mi su boobaa duñ am problème waaye bu fekkee niñ bëgg a fajee mbir mooy xale buñ fekk ci tali bi jàpp la jàpp la tëj loolu du la dara buñ nekkee ci jamono ndóol jamono ñàkk dañuy seet ña am ñu dimbale ñu ñàkk parce que bi muy ñëw yàlla di ko wàccee yàlla xamoon na ne dana am bind jaam yum dul may lu leen dundal waaye bind na ñoo xam ne la ñu yor buñ ca gestoo ña ñàkk ñëpp mën a dund dañu ko dañ ko def rek parce que yàlla du du juum lu mu def noonu la kon ñi mu may wërsëg ci àdduna bi tey bu ñu gestoo ñi néew wërsëg man leen yóbbaale moo tax yàlla indi azaka moo tax mu indi sarax wax ko ci alxuraan alquran innama sadaqat lil fuqaraa wal masaakin kon donc du luñ mën a dàq kon initiative bii nga xam ne Diop def na ko moom la ñu gën a d'accord ñun moom la ñu reconnaître mais reconnaître ñi ci des ti mooy lan tëj ay taalibe mooy lan dal ci daar yi mooy lan ay taalibe yi ci mbedd mi ay yelwaan ay nangam loolu moom ñun gëm gëmuñu ko ànduñu ci li ñu gëm ti ànd ci daal mooy initiative bi képp ku yàlla may wërsëg nag te may la xol parce que nag nit dina am dara te yàlla du ko tàggat pour mu def ci am kooku moom nañ ko xam nit am na lu dul jeex am yéene bi mais yàlla du ko ko sant parce que lu mu doon ndigal lay doon bu la yàlla joxee ndigal li nag danga am doole mën ko def mais bu la ci yàlla boole doo ko mën a def kon ku yàlla may nga am sa benn juróomi dërëm man caa dindi ñaari dërëm jox ko tane boo pare ne jërëjëf yàlla ndax am na ko yoor juróomi milliard te mënu caa génne dërëm dimbale nit waxuma sax ni waa ay bokkam sax du leen dimbale kon initiative bu rafet la ñu di ko rafetlu di ñaan itam ñëpp roy ko ci rawatina euh, gouvernement bi ah, rawatina ñoom ñi nga xam ne ñoo yor doole réew doole réew ku ko yor yaa mën a dimbale waa réew defe naa lii bu fekkoonte ne état dina koy def gisuma lu ko gën. waaw borom alal bu ne di ko def gisuma lu ko gën man daal euh, saaga yee xase yi daal lii ma ko dàqal man waaw ah, parce que amul solo. Ah. waaw chaque année lay doon chaque année lay doon Diop moom yàlla moo ko nattu bu ko amuloon sax mën naa ne dana ko lebi baa mu lijjanti ji ko baa moom daf ko jaral lu ne waaw xam nga noonu la mel xaritu sëñ Mansour la woon fii bul defe ne daara ji la koy defal de. fi mu ne nii bu paree kii mooy yóbbu xaru tabaski kii mooy Mansour Mbengue mboolem imam bu fi ne dana la jox xaru tabaski mboolem kër gi ku fi war a am xar na la jox xar te jóom mi koy joxe kenn du ko teg bët du fi ñëw sori cérémonie mosu ko fekke mooy joxe xaru tabaski day joxe suukaru koor lépp moo koy defal paa yi waaw donc ku am taxawaay la ci Tiwaawoon ku am taxawaay la ci daara yi ku am taxawaay la ci kilifa diine yi su gàmmu Tiwaawoon ñëwee nii ma la ko waxee leen kenn ku ne dina la yónnee nag yónnee fa ceeb. kon donc taxawaayam du du daara ji rek dana ko def imaam yi def ko ñuy nodd def ko kilifa yi def ko chef de quartier yi kenn ku ci ne da lay yónnee eh, yónnee waaw cérémonie bu xew woon mu téléphone kii ne ko lijjanti eh, lijjanti nangam ñu dem yóbbu ko fa. donc kon mën naa ne la rek eh, Diop moom avancement woon mooy bëgg-bëggam waaw mu ngi taxaw bu baax a baax édition yi bëri na bu ci ne dañ koy def chaque année te day gën a rafet ah amul bu mu ci dellu gën a hmm? waaw xam nga euh, moom lim nga xam ne moom lay def ci kàttanam mooy mille deux cent ndongo dana leen solal junni ak ñaari téeméer ci ay ndongo xam nga loolu tuutiwul bu keneen jëloon mille deux cent keneen jël mille deux cent muy cinquante personnes bu ñu ko defee léegi ku ñàkk dootu fi des xale am jàmm mais mille deux cent personnes muy ay ndongo dana leen solo waaw ah, donc fa la kàttanam yem nag nit ku ne fi sa doole yem fi nga mën a yem waaw taalibe yi nag ëpp nañu loolu. taalibe yi loolu la Mbaye Samb bëgg a xam est-ce que ñëppay sol wala ñeen nay sol fi dooleem yam foofu la parce que mille deux cent personnes loolu la am kàttanam def na ko la reste bu amoon keneen ku ko taxaween mu baax mais moom li mu mën def na ko mais li fii ndongo ëpp waxuma mille waaye ëpp na trois mille quatre mille cinq mille waaw waaw <coughs> waaw parce que mille deux cent ndongo yi dañuy jël daar yi nga xam du tuwaawoon rek dañuy jël baar yi nga xam ne ñu ngi wër Tiwaawoon fu mel ni ay kër njobbo ay dëkk yi ñu wër nii benn bu ci ne dañuy fa jël ay sëñ daara parce que ku néew doole sax boo ko déggee da ngay ñëw ci xale yi ne waaw man sama daara aw ma ku leen solal donc ay soixante quelques daara yoo xam ne dana leen solal a ah, soixante soixante quatre daara yoo xam dana leen solal bi mu ci génnee nag li mu ci mën mooy soixante quatre daara yooyu ci jël mille deux cent ndongo di leen solal la ca des nag yàlla moo xam. waaye moom fii la doole mën a yem foofu la doole mën a yem donc nit ku def la la wari nag wàcc nga nag donc loolu mooy moom la man te gis nga waru ko waru ko am na ñeneen ñu mu gënoon jekk ñu di ko def waaye gannaaw moom la yàlla dimbale mu di ko def nag alors il faut ñu nangu ko. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يشكرون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا حبيبي يا مكرم